beneen bi nga xam ne am na te ma waxoon ko sénégalais yi mooy le 16 bi ñu ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey coow li bëri woon na lool waaye man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo noyyi biir di daw ci saasa man xamoon naan dañ ma doon bëgg rey man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu du laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne kuñ ko sotti mën nga dee ci saasa loolu jeexal na wax ji leneen li ñuy wax yépp waaw fu mu jëlee produit bi est-ce que dañoo def scellé normalement kan moo yóbbu yére bi ak nangam amul solo ndax yére ba fa ma nekk ci laboratoire ma nga fa ba léegi saa suñu ñu commencé une procédure judiciaire ku bëgg a dem foofu soo bëggee def exper contre expertise wala loo bëgg di nga fa fekk yére bi ndax yére bi fii yépp la sotteeku woon ak ci mbagg gi donc affaire bi des na fa mu nga fa bëri sans compter li nekkoon ci li daal li tisoon ci maître Clédor Ciré Ly donc ñun am nañu suñu échantillon teyit moo fàttaliku li ma waxaat ñi ma bëggoon rey jàpp nañ suñu benn xale bu ñuy wax yargasi nga xam ne bëgg na ma fu bëgg yem ku ma gis may dem aéroport moom ngay gis mu ne sama gannaaw ku ma gis may daw léeg-léeg moom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem jàpp kooku naan moom moo doon essayé rey waa ji moom moom moo gën a yomb ci rey ma ki mu jàpp kon bi mbir mi di am heureusement filmé nañu vidéo yaa ngi fii ñu téye biir oto bi man maa fa newoon Guy Marius saaña euh, Zak mi doon dawal ak ndatu ndatu mbooj mi newoon ci gannaaw maître Clédor Ciré Ly benn instant la ñëw di ubbi pour xëcc mu tombeek soo génnee ñooñu ñi waroon oto bi yëpp alkaati yi la boobu daq nañ ñëpp ba ñu sori vidéo yaa ngi fi te produit bi tam nee nañu produit bi lu alkaati yi di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xeex ak nit kon kay lool leer na produit boobu soo demoon ci marché yi doo ko fi am soo ko commandé woon dañ lay jël si ñoom rekk ko mun a yor kon ma wax nii maa ngi confirmer it ni dañ ma doon essayer faagaagal te liñ ci war a def ñu ngi koy def ndax avocat yi tey pare nañu document bi ñu war a commencer liggéey walla bi ñu war a déposer fi ñuy déposer te lii yëpp nag dafa am lu mu jur lu bari wax naa ko fii ci nasaraan bi loolu amee ba léegi man duma ku ma xam-xam ni man duma jooytu man duma daw di seeti ay kilifa naan leen wax leen ci walla jàpp leen ci man dama gëm yàlla lu am ma dékku ko noonu la ma yàlla bindee kon su ma demee ba wax xam leen ni lu am la bi mbir mi amee ba léegi am na lu muy yàq ci sama santé man xam naa ko ñu ngi forcé rek di dox te dinañ ko continuer dox nag ba keroog ñuy yegg fi ñu war a yegg parce que suñu engagement la ci kàttanu yàlla à part analyse yi am na ay IRM yu ñu def yoo xam ne la ca feeñ ci euh, wàllu cerveau médecin bi dafa bind ne ma il faut nga génn dem foo xam ne seen xarale ci wàllu paj egg na foo xam ne dinañ mën a gën a xootal analyse yi parce que xamuñu ndax lu dangereux wala lu dangereux waaye waruloon nekk fi mu nekk ni loolu moom lu wóor la may wax sénégalais yi nag ni ñun dañoo jël engagement parce que dañoo bëgg réew mi dañoo jàpp ni li ñuy dugal àjjana ëllëg coono gi ñu doon daj ngir suñu réew la ñun loolu la ñu gëm ñoo ngi góorgóorlu ci lépp lu yàlla santaane waaye jàpp nañ ni peut-être yàlla lim ñuy gën a rusee mooy la nga doon daj ngir sa askan baax moo tax dara mënuñoo delloo gannaaw ñoom su doon dañoo yem rek ci di ma lor ñu ne waaw baax na ba léegi waaye man nu ñu munee ubbil ma dossier yu dul jeex ab sa ndax sax bu romboon fii ne Sonko ma xeelu ñu ubbi dossier ba pare man su ma déposé plainte duñ ko traité maa ngi fàttaliku depuis 2016 sama radiation bi ma Macky Sall di dàq fonction publique te tegu ko fenn ñu bañ ne du ma ànd ak samay avocat ma saisir cour suprême mu bañ dàq ko 2018 ñu faat suñu jigéen boobu Mariama Sagna ba tey ba sànq justice tegu ci benn acte bu ñu mën a ne lii la 20 août 2000 4 mai 2018 ma toog ba gis lu garaaw garaaw ci alalu réew mi 94 milliards yoo xam ne dañ ko doon foo ma jël sama responsabilité en tant que citoyen waaye jël sama responsabilité tam en tant que député daal di bind justice heureusement bindaale OFNAC OFNAC génn na rapport am ba ne Ousmane Sonko li mu wax yëpp dëgg la te dama bëgg ngeen ubbi ay poursuite contre x y z ba tey jii ma wax ak yéen procureur bi yor làmmiñam di wax naan suba day wax ci cocktail ak xaw ma lan bañ na ne du laal loolu 94 milliards bu ñuy tudd ma jëlaat même dossier bi ne procureur bu ko traité le 20 août 2019 ma yóbbu ko ci doyen des juges mu ne ma ah li nga wax de du ma ne amul de waaye nag du yow yaa ko war a dénoncé soo romboon léegi kër jàmbur gis ab sàcc bu tëb di sàcc yow amoo droit ne wupp sàcce yi loolu la loolu la procureur wax kii juge doyen des juges ma déposé le 5 janvier 2023 plainte contre Gabisso maa ngi ko déposé procureur général pre la cour d'appel parce que ñoom foofu nga leen mën a déposé plainte ci complot bi mu bokk ba tey ba sànq dara ma déposé ko groupe bu ñu doon comploté yépp Mamour Diallo ak mu àndal ak yépp janvier 2023 ba tey ba sànq kenn tudd ko Serigne Bassirou Gueye bi nga xam ne moo dem modifier rapport bi muy lu garaaw ci liggéey magistrat ma dem IGAJ ak cour supreme déposé ko fa ba léegi dara bi ko procureur Ousmane Diagne commencé bugg a traité Macky Sall da ko faa jëlee yóbbu ko feneen ma déposé une plainte contre maître El Hadj ci ay wax yu ñaaw ay saaga ak yeneen ak yeneen def ko ci bâtonnier def ko ci euh, euh, parquet général ba tey jii traité wuñu dossier boobu Ibrahima Abdou Karim Diop procureur ak Ibrahima Bakhoum bi nga xam ne yoon may na ma un mois ñoom sama un mois jeexul ñu enrôler dossier bi ma déposer plainte contre auprès du parquet général euh, procureur général près la cour suprême le 12 avril 2023 ba léegi waxuñu ci ñu rey suñuy ndaw fukk ak ñeent au mois de mars 2021 nguur gi ne woon day ubbi enquête ba tey ji enquête ñu defuñu dara juin 2022 ñu reyal ñu ñaari nit mars 2023 ñu reyal ñu kenn ba léegi justice nee na yoonam newu ci kon lii lépp nag bu dajee nga boole kook li ma njëkk a wax man dama jàpp ni li ma waroon def pour wane ni respecté naa suñu justice def naa ko waaye saa su ne li ma justice fayee mooy respecté wu ma fii léegi Macky Sall nga leen naan fexe leen ba faagaag la ma ko dinañ ko def moo tax ma ne nag jot na ku nekk jël responsabilité am man ku ma respecté wul du la respecté te bis ni ki tey dinaa door campagne de désobéissance civique par rapport ak justice bi mooy nangu lu ko cër gi mu jox boppam ku nekk na jël responsabilité man lu ma ci góobee gar ko parce que nag dafa am fu mbiri di yem waaye nag li ma bugg a wax kenn ku ne mooy ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow nga mucc ci ndax nga sa bopp ku yaakaar ni mun nga dëkk ci lor nit ñi ci lu dul dëgg ñu garantir na leen dinañ la protéger armée yëpp a ngi sa gannaaw mun nga tëdd nelaw nañ la jox alal nañ la jox lii ndax nga sa bopp de bu ñu buggee réew mi am jàmm nañ ko mayante man damaa yor njaboot ni ñëpp li ma daj ci ñaari at yi néew na Sénégal boo Sénégalais boo xam bu ñu ko tegoon ci kawam euh, du du du du du nax saay bu yàgg. waaye ma nangu ko parce que li ma gëm moo tax mais nag loo gis am na limite te foofu lañ ci toll ñaareel bi nga xam ne bëgg naa ko wax it mooy li ñuy woowee dialogue politique mooy waxtaan bi nga xam ne nee nañu Macky Sall woote na ko la ciy wax du sori mooy Macky moom ci boppam moo ne réew mi mu ngi dox problème amu fi détenu politique amu fi institution yaa ngi dox waa réew mu ni mel lu fi jar dialogue réew mu ni mel kay alhamdulilah rek macha allah la waaye gis ma lu fi jar dialogue waaye ñu nangul ko loolu parce que ñun jàmm la bëgg ci réew mi ñun dañu gëm ni fii leeg fukki weer bu soobee yàlla réew mi tegu suñu loxo te ku bëgg réew tegu sa loxo da ngay ñaan boo koy jot nga jot ko ci jàmm ak dal ak tey parce que sa xam-xam nu mu leer leer leer sa xalaat nu mu leer nu mu baax baax baax say programme nu mu baax baax boo jotee ci réew fekk réew ma tas na ba noppi defe naa mandat bi yëpp yaa ngi xool nooy def ba defaraat li yàqu woon waaye doo tal ay développement moo tax ñu ne nañ ko ko nangul waaye nag ñun kenn duñu booleeg sénégalais parce que day def loo xam ne xam nga sénégalais dafa émotif bu ñu nee ah waa ji nee na woon a gaa yi dialogue rek ah ndeysaan waa dem leen waxtaan xam nga waxtaan xam nga lii bu ko defee ku ne man dew ma rek ah kii moom nitu ay la gis nga waxtaan bu dee sincérité moo ko lal bu dee yéene gi sell na bu dee yéene gi sell na bu dee naxe mbaay taxu koo jóg waxtaan boobu day yomb ñépp a koy bëgg ba ca njëkk mooy naka la ñuy demee waxtaan te li Sénégalais yépp di xaar te muy yoon di ko xaar ci Macky Sall moom àdduwu ci Sénégalais li ñuy xaar ci Macky Sall mooy mu ñëw ne leen maa ngi leen di gërëm di leen sant defal ngeen ma loo xam ne mënuma koo fay kenn ndax nekk président de la république ci génération di nga gis génération lëm kenn moo ci am chance nekk président de la république ngeen may ma ko benn yoon mayaat ma ko beneen yoon malgré samay wax waxeet malgré jaay doole gi malgré résultat yu néew yi malgré chômage bi malgré ndool bi malgré malgré ngeen mayaat ma beneen te constitution bi ne kenn mënul toftal lu weesu ñaari mandat kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bu soobee yàlla février 2024 sama mandat jeex ma organiser élection ci ni mu gën a rafete yemale ñépp sénégalais yi seet ku leen doy ñu tànn ko ma dem continuer sama dund tranquillement ndax nag président de la république nag binduñu ko ci jëw nit ne da nga koy dund ba ilaa yow mi dinde te waxuma sax démocratie euh, euh, euh, européenne yooyu mais fii